ni ñu ko baaxoo defee saa yu weer wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent danañ maase dajawaat fii nga xam ne moo di e, jumaa ju mag ji ci Touba e, bu ñu noddee ba julli ba noppi sëriñ Abdou Diop imam dana yëkkati kàddoom ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi nee na nañu maase séntu weer wi te ko ci xam lu wér nga yëgle ko noonu it la amee. yeneen i jëwriñ yu nekk ci yeneen i këri sëriñ Tuubaa yi rawatina mel ne ku mel ne sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Abdoul Khoudous féete ca Daaru Mooti ak yeneen barab yi nga xam ne danañ fa séentoo weer wi ci njiitu sëriñ Modou Bamoun Bousso imam waaye feggoo ak waa mu Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiye Bousso tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Muharram ci atum 1442 di ajuma ñu àndandoo nag di séntu weer wi jàkkaarloo ak tali alaaji Babacar Kebe Ndiouga yal na yàlla li njéggalam ak yërmandeem euh, bi ñuy séntu nag waxtu wu ne bu ñu séntoo ba waxtu wi jot dañuy jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ndigal lu fa bàyyi rek mooy li nga xam ne moom la ñuy kon dañuy bàyyee kaddu gi Serigne Abdou Diop imam ginnaaw bu ñu séntoo ba waxtu wi jot jokkoo na ak kër Serigne bi jot leen digal la nga xam ne moo bàyyi ci kër Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye ni ko sëriñ Fallou Galas si la waxee rek moo di weer wu ne sëñ bi dana yebal ci jumaa ji ñu yéene fa ne nañu séentu weer yi te ko ci xam lu wér nga ñëw yéeli ko bu ko defee ñi sase ñu ñuy ñuy ñuy séentu weer wi danañ ànd ak mbooloo mi taxaw ci sowu jumaa ji di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi yàlla dogal nag ñi ñi too taxawoon fii di ko séentu nag ci sowu jumaa ji ñëpp yàlla dogal na gis nañ weer wi. biñ ko gisee it lañ lañ cey war a def def na ko mu li sëñ Fallu Galas si la wax muy jokkoo kër sëñ ba yëgal ko loolu ba sëñ bi kon joxe na ndigal wane ne kon weer feeñ na suba ci gaaw bi mooy benn fanu safar di diggi di gàmm di weeru màggal gi kon ñu xam suba mooy benn fanu weeru màggal gi di safar di diggi kon na ko ñëpp xam noo ñaan nag Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla sàmm ko te sàmm ba li mu yéene ci yoon yi mu def ko ba def ci lu njortam dana ànd koog moom asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. kon mbokk yi weer waa ngi noonu. màggalug Tuuba talaata lay doon di yemoo ak juróomi fan ci weeru tubaab. di juróom fan ci weeru tubaab. Eh, di fukki fan ak juróom-ñett ci safar. kon ñu jàpp ne weer yi feeñ na suba ci gaaw bi mooy doon benn panu safar. Eh, talaata juróom benni fan ci weeru tubaab mooy màggalug Tuuba. dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñi fàttali bokk yëpp ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa ak comité d'organisation bi ak daayira Muxaddamatul Xidma ne képp koy maggal si na takk ab masque te fexe ba defaale masque ci sa pos ndax loolu mooy ndigalul sëriñ bi noo ngi ñaan ci yàlla mu yóbbu ñu ci bis bi ci bismillahi rahmaani rahim ñu weesu ko ci alhamdulilahi rabil alamina ci am ci ngërëmul sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy àndandoo di sant lu boromam subhanahu wa borom wax ne ku ko sant moo dolli la yàlla yàlla dolli ay xiiwal te jële fi jàngoro ji bi barakati cheikhna ahmadul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu